tey bettoo ñu waaye billaahi wallaahi watallaahi maa ngi wat ci leeru alxuraanul kariim dinañ jëflanteeg yow ba nga tuubaat ko dinañ jëflanteeg yow te boo ko tuubul barki salaatul faatiha doo gis jàmm di nga ko tuub wala doo gis jàmm yow yow li nga wax sunu sëriñ waaye maa ngi wax tey ci bis bi ci tey jii képp koo xam ne da taxawaat di wax ci Cheikh Mouhamadul Moustapha barki leeru alxuraanu karim dinañ jëflanteeg yow ci baatin waaye Amin Ndiaye mi maa ngi leen di waatal ay fan laa leen may bu ko tuubul barki Seydina Muhammad du am jàmm billaahi wal xam-xam am na de dama leen di wax lu leer xam-xam am na ñu amuñu kenn ku dul Cheikh Mouhamadul Moustapha bëgg nañ moom la ñu bëgg tey moom la ñu bëgg ëllëg dama ne yow miy wax ci Cheikh Mouhamadul Moustapha taxawaatal nga tuub ko boo gëmee ne baatin am na dama nga tuub ko barki salatul fatiha dinañ ci def suñu kemtulaay kàttan dina ma jara dootuma lekk dootuma naan ndax yow barki alxuraanu karim yow yow yaa yabaate yow yaa remp yéen seen politique bu ñàkk fayda bii tey ba mu jaral la nga taxaw di wax ci Cheikh Mouhamadul Moustapha maa ngi jin ci baatu laa ilaha illa allah bu dee yàlla nag dëgg la moom mooy waahidul ahad billahi boo ko tuubul ay fan laa la may di nga torox man maa ko wax boo ko tuubul di nga torox xol laay waxee ak yow te billahi dootoo ko defati ba abadan barki salaatul fatiha amuñu kenn ku dul Cheikh Mouhamadul Moustapha moom la ñu bëgg TV, vos besoins sont nos priorités. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.